Sikicoor loolu yëpp di gàllaan buy firnde ne it fi mu toll nii tembe it diwaanu Sédhiou soxla na benn centre de réanimation ndax it ñu war a bàyyi xel ci li ni donte sax fii ci diwaanu Sédhiou barewul trop lu ñuy sàmmoonteeg digle yi waaye diwaan bi it ñetti weer yee ci weesu ni nemeeku ñu benn cas Covid 19 fii ci diwaanu Sédhiou mbas mi mu ngi dikk fii ci diwaanu Sédhiou ci jamono ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer avril atum 2020 boobu ak jamono ba muy noppi ñu nemeeku ci it lu toll ci téeméeru ak ñeent fukk ak juróom ñoo xam ne dañoo ànd mbas mi lay am ci it benn ñoo xam ne dañ ci ñàkk seeni bakkan loolu yëpp tax na it fi mu toll nii waa kër docteur yi ànd ceeg kilifay administration di soññ mboolem askan yu yeewu fii ci diwaanu Sédhiou fexe yoo xam ne mu ngi aju ci mesure barrières yi ngir ñu daal di gàntal law boo xam ne moom lay def waaye fileeg booba it dañuy nemeeku jaar-jaar yoo xam ne fa la soxna si di jaar it fi mu toll nii ñu yóbbu ko it Sowetaas te it ñu war a gën a bàyyi xel mbooloo mu dajaloo ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. jërëjëf Moussa di sunu ndaw la ñu toogal ca diwaanu euh, Sédhiou euh, loolee day wane tout simplement la may faral di wax Dakar n'est pas le Sénégal wante surtout Euh, day firndeel ne jamono yoo xam ne ñu ngi wax par exemple Dakar Thiès ak fajkat yi ak jumtukaay yi ndekete yoo am na ay gox ak i goxaat ci euh, mim réew yoo xam ne ñoom bu ñu amoon euh, as tuut ci lu dakaar am sax duñu ko gëmee. wallaay waaw waaw loolu élément bi jàll na ci suba maam Sédhiou mais li mu wax daal ñaar moo ci xaw a doy waar mooy ndaw si dafa doon jógee dakaar di ñëw Sédhiou kon ka contact bi mën na gën a mën a gën a bari ndax fu muy jaar ma naa bari. beneen bi daañu ko mën a dimbali pour ñu mën a am lu ñu lu mu mën a noyyee te amul séju loolu tamit manque de matériel boobu defe naa ne docteur Seydi waxoon na ko jamono yi la ñu génn euh, bi mu demee ci côté yooyu sax la ko waxee woon daan ne fii jumtukaay yu bare bare bare bare manque na fi amoon na sax tuuti problème ak ministre bi mm-hmm. waaye finalement Macky Sall mel na loolu bàyyi na ko xel daal waaye daal loo ci mën a dégg mooy mm. bàyyi xel comme na na ko xel ndax après am na ay mbir yu fa dem ci wàllu mm. jumtukaay yooyu waaw laa bëgg a wax daal <laughs> Euh, non non euh, xam nga man daal bi ñuy wax ci corona beeg yooyu fi mu ne hmm. euh, léeg-léeg corona moom dëgg la waaye daa feeñal yu baree bari ci ñun hmm. ndax xay na milliards yi ñu doon wax ci wàllu ceeb bi ñu doon seddalee milliards yi ñu doon wax ci wàllu dugub yi ñu doon séddalee suukar yi ak yooyu ak hmm. meew yi milliards yu toll noonu waroon naa dem ci paj mi nga xamante ne hôpital yi nekk ci reson yi nekk ci gox-goxaan yi nekkul Dakar ñu gën koo améliorer bu baax a baax ci wàllu santé man damaa yaakaaroon nëgë day fekk ñu naan inauguré nañ ci corona bi tax na yokku nañ nangam ci wàllu santé tabax nañ nangam def nañ nangam hmm. ñu hmm. euh, ah. la song mën la euh, te euh, xam nga corona bi lépp la songandoo. waaw donc bu fekkee ne mais bi mu songee dajale nañ fi ay milliards yu bëree bëri jënd ko ceeb ak suukar boo xamante ne ñu ko tabalee kenn xamul loolu fu mujj fàtte nañ ko parce ñu confiné ah. waatee li ñu li ñu daloon ci ginnaaw bu ñu dalaatee dañuy hmm. waat ko ceeb ak ak suukar ko dem toog est-ce que loolu mooy solution bi. Hmm. est-ce que ceeb boobu ba nga ni sénégalais yi hmm, am na ñu baree bari ñoo xam ne leerul ci seen bopp. Hmm. ba euh, dañoo jékki-jékki rek man damaa xamul ba xam gars yi dañoo am fay wax. wala dañoo am ku leen di ñaanal wala lu xew. mais réew mi dañuy coow benn affaire ba mu ne teel ñu jékki-jékki rek affaire bi seddu guy maanaam ñu fàtte ko kenn dootu waxati lu jëm ci loolu. non loolu loolu ah sénégalais moo mel noonu. duñ ko topp ba mu sës amuñu dara lu ñu topp ba mu ba mu àgg. non ci déedéet amul sax non luñ coow ñu defan fàtte nañ la loolu. léegi tey bu corona nekkee suñ feebar bu ñu jaaxal am na yeneen feebar yu ndaw ndawaan yoo xam ne tey Maodo boo demee ci hôpital yi ne ci euh, Euh, régions yi hôpital boo dem nit ñaa nga fa fees dell am ñoo xam ne ñi ngi déplacé wu ci benn rendez-vous jógee région ak région wala ñu jógee région ba ci capital bi ndax am rendez boobu wala ñu ñëw faju paj moomu hmm. réew moom kay wax dëgg yàlla yàllaa ñu suturaal waaye corona xajut ci ñun hmm. ndax dafay fekk ay feebar yoo xam ne réglé wuñ ko woon ba noppi hmm. kon loolu loolu leer na euh, def naa corona euh, ci li mu jàngal yëpp bokk na ci également que ndakete yoo ñun dañoo am lu lu loo xam ne dañ ko warloo ak soignant bi euh, maanaam muy seen jumtukaay waxtaane nañ ko keroog euh, oustaz Maodo mooy maanaam personnel soignant bi kenn du natable seen xarañaay ah euh, ci wàllu faj moom Sénégal moom ci àdduna bi yëpp dañ ko ciy naw wante euh, ci wàllu matériel loolu c'est une autre histoire. Mm-hmm. et là aussi Mbacké a raison quelque part c'est-à-dire bu ñuy faral di dégg ay milliards ay milliards est-ce que milliards yi ñuy faral di dégg ñu ngi koy dugal ca fa mu waree intérêt général wala milliards yi ñuy dégg. dafay am fu muy jaar foo xam ne normalul loolu it euh, c'est des questions à euh, population yi elles sont en de les poser à chaque fois ñu toll ci yenn situation yi li ma bëggoon léegi gannaaw bi ñu jógee Sédhiou di ñaanal maire boobu ah ak bépp. malade parce que bu ñu fàtte ne aussi euh, dee yaa ngi continuer ngeen baal ma ci kàddu yi euh, voilà ñu ngi ah, ah. ñu ngi ñu ngi faatu ndax corona et puis il y a beaucoup de malades également ah, euh, ci structures sanitaires yi donc ñoom itam ñuy ñaan bu ñu ñaanalee ak sant ak gërëm personnel soignant yi wante ñu bàyyi xel également malade yi ak ñi nga xam ne ñoom itam naka lañ koy waxee oustaz ñu ngi dëddu ñu ngi ñu ngi mm-hmm. faatu ci ci mbir mi bu may dugg ci yenn yi nag dee leen ci jàpp yéen itam ngeen dugal seen wolof parce que sinon tem ma wax koy waxee <laughs> voilà <laughs> kon ñu gannaaw yéen a yéen a yéen a xam wolof bi kañ dee leen ci jàpp. <laughs> waaw xam nga bon man a fait man jàngat yi may def loolu. donc ma nekkee di wax par kii bu ma waree wax benn penalty ci wolof. boobu ba léegi maa ngi lay cokkaas. mais ah, ma. nga dem balaa may tirer penalty après ngeen ne du nii lañu koy waxee. Ah, d'accord këf naa ko. Ah, parce que yow sax da def ku fan ba pare. <laughs> waaw non ci Kufraal dëkk Nicolas. <laughs> aywa xam nga maanaam euh, li ngay wax nii euh, jële ko ci soxna soosu nga xam ne ñu ngi koy ñaanal tamit mu am wér. Mm. c'est important xam nga euh, problème mu mbas mi ak tamit. cong gin ko cong pour xeex ko dafa bari ay facteurs yu bëree baree bëri maanaam dafa bari ay ay ay ruq-ruqaan uh-huh. c'est vrai que man toog naa fii bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy kaas pourquoi milliards yi mille milliards war naa mën a kii nangam ak nangam uh-huh. mais après man bi ma ci defee quelques études ñu xool xool xool xool uh-huh. dama naan comme ñoom defaguñu seen bilan parce que tôt ou tard dañuy rendre compte mais dafa jot loolu dafa jot ah yor monsieur Nampula Tall nag. ah waaw mais. xëy na maanaam xam nga 1000 milliards yooyu le hmm. xam nga def nañ ay dépenses nangam ak nangam. xëy na joxaguñu bilan général bi wax def si kii ministère bi ne lii la wala lii bu ñu ko defee rek après. waaye war nañoo mën a justifier. Ah, milliards yooyu noonu fu mu jaar ak fu mu def nañ ay point de presse euh, ci jamonoy kii sant Faye Mansour Faye wax ne lii. est-ce que yéen journalistes yi jox nañ leen chiffres yu leer war wax leen ne fii la jógee fii la jaar ak fii la dem. Mansour Faye wax bu ngeen bëggee lu leen leer mën ngeen dem fii ak fii ak fii ngeen xool. ngeen def investigation waaw ci seen site bi loolu maa nga fa léegi kay coow li xam nga fu mu nekk seen loxo ci document yooyu ba mën a investigation ba mën a dem à la source ba xam ne lii mu wax lu wér la. xam nga xam nga ministre bi dañ koo joxoon benn programme. déedéet seen liggéey laay wax yéen journaliste yi. bu weesoo communiqué yee kërëb kërëb. est dem ngeen à la source pour xam ndax lii euh, dëgg bu wér pegg la am déet. mais source boobu yow source boobu mënoo koo gis parce que ñoom joxuñu la source bi. ñoom lañ wax rek lañ la jox. wax yow yow yow papier mooy conférence de presse bi mu defoon moom. bu dee leeral la woon it daa mujj gën a lëndëmal. ndax léegi wax nii waaw ay lay la fa indi. ba ñàkk eh, koy xëpp. Euh, euh, ñu nga xam moom moom lañ luwee ay oto. Mhm. lañ fay ay mene bu ñuy wàccee ceebab. Mhm. yow xuma gis nga ceeb ba mu déet. waaye boo réewal ci réew mi ñu dajee ko ceeb. bi gisuma ko dama koo séen. Ah, xam ngeen xam ngeen yéen ngi wax c'est bien parce que dafa am ku ñu dénk mbir yeeg yooyu man euh, la personne ou le nom m'importe xam nga ñu ngi wax yoo xam ne dafa saxal askan wi. Uh-huh. Ah, ñëpp war cee mën a euh, gis seen bopp moo tax ma euh, euh, cokkaas foofu oustaz Maodo Faye parce que moom journaliste la. Uh-huh. ma ne yéen gannaaw bi ñu leen joxee ay site internet ki communiqué ki yu ni mel xam nga yooyu moom da ñëw rek lire. Uh-huh. mais est-ce que dem ngeen à la source ngeen vérifier ah, ndax loolee chiffre ñu leen jox ndax ci terrain bi. c'est vérifié ou pas. ah waaw non xam nga c'est vérifié ou pas ça dépend ma ne directement hmm? yi nga xam ne moom nga jot rek ci nga mën a référé wu léegi nag dem ca cocaat ga nag foofu moom kooku nag mooy programme problème Sénégal waaw loolu nag loolu nag seen liggéey la nag du du ñoom ñooy ñëw neen leen nii ngeen ko war a doxalee quand même euh, léegi oustaz bu ko defee kon ñu dem rapidement ci whatsapp bi bu ngeen bëggee bokk ci bile émission mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 waaw di wax na man dama doon laaj rek dafa dama bokk ci ay groupe groupe yi dañuy euh, ubbi benn groupe ci whatsapp bi waa dañ ci wàcce ay kaamil waaw léegi nag ma dégg ci nit mu ne euh, kaamil yu ñu wàcc ci biir groupe man duma ci bokk ndax kaamil yooyu wérut man dama doon laaj nag ndax euh, est-ce que kaamil yooyu ñuy wàcc ci biir groupe bi bi wér na wala boog bu fekkente ne bi ni wérul lan moo tax kaamil yooyu wérut loolu daal laay laaj di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ak mm, jërëjëf mbokk mi kon euh, rapidement. waaw yooyu ñuy woote ci groupe bi. waaw di wàccee kaamil ci mm. en tout cas kaamil ci boppam moom wér na. Mm. kaamil ci boppam bala bala balaa wàccee geew yëpp dugg. Hmm. moom wér na moom ba pare. Hmm. léegi nag nañ koy defee foofu la coow li nekk. Hmm. léegi est-ce que dañuy dajaloo jàng alxuraan. Euh, defal ko kenn ku faatu wala yu demee noonu donte sax. Euh, xam naa ni dalil bi dana naqari indi lool ci ci ci ñi nga xam ne ñoo jàng histoire yu mel noonu. waaye comme am na euh, tawassul yu ñuy def ci ay tawassulaat sax yu ñuy def ci alxuraan ak yu demee noonu pour mën a am barke ci alxuraan. xam naa bu dee lu yees it loolu moom xamuñu ko woon. Hmm. wàcc alxuraan ci groupe moom xamuñu ko woon. Hmm. xëy na nag jumtukaay yi nga xam ne. Ah, moo nouvelle technologie. waaw waaw moo tax ba nangam. Hmm. waaye alxuraan moom foo toog jàng ko def nga lu baax. kon kon kon léegi nag. jàng ko googee. jaarale ko ci réseau yi moom. kooku moom beneen affaire la. waaye daal man su ma toogoon fii di jàng alxuraan moom am ko may enregistré. xaw ba ak technique bi rek waaye man li may def moom lu baax la. ok léegi nag fan ko jaarale Modou wax Demba wala Samba gi daal am nekkul woon asl bi nekkul woon cosaan alxuraan la. Hmm. léegi nag loola. ña hmm. jàng alxuraan daal ak fu ñu ko jàngee moom def nañ lu baax. d'accord waaw waaye nag wàccee ko wàccee ko ci nan da ko def nangam ak nangam te mënoon moom miinuma ko. d'accord léegi nag. Euh, euh, sama mandute parce que loolu moom. <laughs> waaw le souci mooy parce que gi sax asli bi. am na ay wareef le <laughs> souci mooy àdduna dafay dox <laughs> te jamono dafa soppeeku euh, influence nouvelle technologie également ñëpp gis nañ yow gis naa Mbacke ni nga def. maanaam nouvelle waaw nouvelle technologie tax ne euh, tout le monde a dû s'adapter quelque part. Mhm. est-ce que loolu lu jaadu la ci wala waaw xam naa euh, euh, bu dee wuute da ciy am moom mooy ndax alxuraan dinañ ko daje di ko wàccee. Hmm. wala ndax kenn moo koy wàccee ndax mën nañ cee ñaanal néew wala bu nuñ ko hmm. cee ñaanal te loolu du laaj bi laaj bi bu fekkee mooy wàccee ko ci groupe WhatsApp yi. Hmm. maanaam man ak yow ak Alassane Thioune ak Alioune Badara Socé ak Maodo ñoo bokk groupe WhatsApp ñu ne ajuma ji dañuy wàccee kaamil. maanaam mbooloo à distance voilà ñu ne Nicolas. ci biir groupe bi yow yaay jàng isib bu njëkk bi. jàng ñaari is bi ñaareel yi bu ngeen noppee ngeen dugal ko ñu ne Alioune Badara Socé ñi hmm. euh, ngi hmm. ah. maye xaalis ñi ngi euh, doxi ngoro ñi ngi liggéey kon war nañ cee mën a jàng alxuraan ñaan loolu rek la euh, ñaareel bi ca WhatsApp pour l'instant ñi def gëstu bi ñu defar vaccin bi salaamaaleykum Sud FM salaam Euh, ñun ay chauffeur lañ te souvent force de l'ordre yi ci kaw tali bi dañuy accuser daggal ñu ci reçu infraction boo xam ne 3000 mille lañu accuser ñu daggaloo ñu trois mille nga xam ne loi bi sax waxu ko léegi nag xaalis boobu ñuy dagg te yoon waxu ko te mu nekk ci accusation léegi est-ce xaalis boobu su duggee ci keesu buur nga xam ne xaalis bi daanaka euh, niñ ko jëlee ci nit ki daal dëppawul ak yoon ba pare dugal ko ci keesu buur. loolu lu ci lu ci lislaam wax nga xam ne day mel ni xaalis bu ñu jàpp ne léwut ba pare nekk ci biir keesu buur loolu lan lañ jàpp ne moom la ci euh, diine ji wax jërëjëf mbokk mi ñaareel bi ci whatsapp kon nag oustaz Maodo Faye Serigne Mbacké Sylla xaalis bu ñu jàpp ne lewul ba pare nekk ci keesu buur lu lay lu ngeen ci wax moom tontu na tontu bi sax nee na lewul kay hmm. kay nañu avancé ah, lewul maanaam bu lewul fu mu mënta nekk lewul du ah. comme lewul rek lewul léegi nag problème bi booy hmm. nañ def ba mu lewat yi hmm. foofu la ñuy xool waaye moom ci biir waxam dafa ne xaalis bi déjà lewul léegi nag lu lewul moom ba yomal xiyam lewul d'accord la doon euh, araam mi ngi araam ba léegi li doon leer mi ngi leer ba léegi li nekk diggante bi nag nekk éléments yoo xam ne doo comprendre loolu du bàyyi ko noonu. <laughs> waaye daal euh, bu fekkente ne ab alkaati comme ni mu ko waxee. Hmm. dañu leen di fekk ñu taxaw ñu fexe ban laaj leen kayit woo wii lañ cee bind. Hmm. la tax ñu dagg ca 3000 francs yooyu du dëgg. Hmm. loolu buñ ko lekkee dañuy lekk riba. ak tooñ la waaw. Euh, am na am na solo sëñ Maodo xam naa bu boobaa alkaati bi nga xam ne nag moo ko moo ko gax ci loolu euh, maanaam forcé ko fayeeku ko loo xam ne du yoon def ko ci keesu réew mi moom moo ko gàddu hmm. euh, ñun ñun nga xam ne aw askan lañ nag ñu ñu ci tëli wala ñu nangam ñun moom suñu yoon nekku ci waaye ka ko gadaal ba jël àqam ci lu dul yoon hmm. kooku moo ko gaa bu fekkonte ne nag hmm. dafa ñëw war a fay 3000 jox alkaati bi 2000 alkaati bi bàyyi ko moom moomu ameel na sénégalais yëpp ku ne 2000 alkaati bi itam ameel na sénégalais yëpp ku ne 2000 Macky nga ne moom ci boppam waaw maanaam bu ma doon dawal sama oto bi alkaati bi arrêté ma ma war a fay 3000 waaw ñun ñaar masla ba ma jox ko ñeenti téeméer mu bàyyi ma ma dem xam nga dama koo ger maanaam corruption bu ma ko joxoon 3000 day dem trésor bi ma ko joxee 2000 da koy def ci poosam sénégalais yëpp ameel naa ku ne 2000 eh. moom alkaati waaw garaaw <laughs> euh, wax la li may faral di wax. Euh, Maodo Maodo <laughs> la euh, Facebook tamit dina wax Serigne Mbacké Sylla waxati na parce que <laughs> loolu loolu nga wax nii sénégalais bu nekk bu lay déglu jamono yi ñàkkul ne mu nga naan kon nag man amel nanu ma. waaw xam nga xam xam nga ger moom ger ger moom mm, mm, noonu la bindoo te noon la bone mm. xam nga ger moom ñaar ñëpp am bàkkaar kii gere ak ki ñi ger arraasi wal mustarsi la yonent bi wax ne ñoom ñaar ñëpp ca fu baaxul fa lañ jëm léegi nag ki nga xamante ne tey bu fayoon day ñëw ñun ñëpp bokk ko eh. bu ko defee ci kay ñun ñëpp la nga eh. eh. ma de mooy ah, ma wax nii kay mooy yax bi nga ama tawil waaw Mbacke commenté moom a xam nga dafa bàyyi ma expliquer waaw <laughs> gis nga lu lewul ah. dès le départ lewul wax ji mën naa jeex foofu. kon kañ nee nga ndox nee nga nee nga wax gi farankulaay oh. na. ah d'accord da ngay lam ca tegaan bu dul commentaire. ah waaw waaw non léegi léegi gannaaw gannaaw bu lewul lewul. léegi farankulaay na. te man tamit sama timing dama koy. ah, ah, ah euh, euh, waaw ko denc ba ëllëg. Ah. parce que xam nga tey bagages yi danoo bëri macha allah. Euh, sponsor yi. Hmm. maa ngi dellu di leen nuyu di leen bëggee di leen sant. waaw boisson punch ñu ngi koy sant bu baax di ko ko gërëm ñoo gunge émission bi lee di ndekki li wante it waaw euh, suset bi lee di bége bége am na tàngal jinjeer hmm. ah mooy da ngay gis Balla Gaye ak waa Géejawaay ñu ngi leen di nuyu d'ailleurs parce que suñu ay soppe lañu euh, bége ñoo gunge ndekki li ñoom itam euh, di sant bu baax a baax a baax di gërëm tàngal bége